mbokk yi asalaamaaleykum wa taala wa barakaatu. Euh, xam naa waxtaan wi dañu ko doon war a séddale ñaari tomb euh, bu njëkk bi moom dañu koy jëmale rekk ci ak tënk ci weer wu tedd bi nga xam ne ci la ñu nekk ak xew-xew bi nga xam ne moo ci nara xew muy xaj di ponk ci ponk lislaam yi tombum ñaareel ba moom jéem a leeral rek tuuti ci borom bi tabaraka wa taala fi muy waxee mottali naa leen seen diine mottalal naa leen xéewal goo xam ne genn rekk la gërëm naa lislaam muy seen diine ci la nga xam ne waxtu wa dana ko maye Eh, su fekkee dañoo jëm ci fàttali sunu bopp di fàttali mbokk yi ponkub lislaam bi nga xam ne ci ponk yi gën a ràññi la bokk ndax ponk ponk yi juróom ñeenti yépp fu ab jullit mën a nekk te amoo ngànti lislaam rekk war ko faa mën a def waaye bu dee aj ci boppam benn barab rekk lañ ko mën a def muy màkkatul mukarrama ci néegu sunu borom boobee nga xam ne moom la def ngir nit ñi di ko aj foofa képp itam fa lañ mën a siyaare Moustapha sallallahu taala alayhi wa mi nga xam ne moom la yàlla def mu gën ku dul moom kon aj ci boppam ponk la ci ponk lislaam yi juróom waxtu woo xam ne jullit bi sart ya mat la ci moom na xam ne bu ko defut dafay daal di am bakkaar na nga xam ne sarti julli bu ma tey ci mu amul benn ngànt bu yoon nangu bu bañee julli dafay am bakkaar naka noonu itam aj ci néeg boobee nga xam ne mooy néegam sunu borom bépp jullit boo xam ne sart yépp daje na ci yow sarte mooy mukallaf nga xàmmee nga am nga wér am nga yóbbal bu lew am nga yoor wóor woo xam ne mën nga caa dem ak jàmm delsi ak jàmm bu boobaa aj ji dafay nekk farata ci yow soo ko deful dangay am bakkaar fa tabaarakallaahu nag réew yëpp dañuy wut ab commission yoo xam ne dañuy gindi gindi ña nga xam ne ñooy waa réew ma am lu ñuy wax ay mutawifoon ñoo xam ne dañuy jiitu ca seen kanam di leen gindi di leen leeral lañu war a def ak lañ war a wattu tabaarakallaahu Sénégal def na ko nekku ko ñuy defee mbooloo moo xam ne lay seen liggéey mooy di dimbale ujaaj yi ci lépp luy jàppandal seenu seen joox seen jëf jooju ji ñu bëgg a def ak lañ war a wattandiku ñu doon ko xamal waaye nag jullit bi ceeb daa wara xamal boppam moom ci boppam ndax am na loo xam ne bu nekk ci liggéey ba bu ko gaaree mën naa am moom rek moo ko yëg te am na ci loo xam ne bu ko gaaree aj ga dafa yàqu nga xam ne ajug lislaam da koy waraat te loola mën naa doon loo xam ne moom rek moo ko yëg ña nga xam ne ñoo koy leeral duñu ko yëg loolu xàmmee bu baax li ñuy tuddee ponk ci ci aj ndax bu dul aj moom li ñuy wax fard ak ruknu ak waajib daanaka benn lay doon waaye bu dee ci mbirum aj nag ruknu dafay du bokk ak waajib arkaan yi mooy ñeent ñeenti ponk la yoo xam ne benn bu ci bu ci jàpp ci am mu kàllaf mu doon aj aj ga da koy waraat ndax ndax loolu ponk la boo xam ne mu ne su ko gañ mu ne su ko jàng muy ñeenti farata bu njëkk ba moo di yéy na nga xam ne booy armal nga koy def ak dox safa ak marwa ak taxaw arafa ak wët nee ba ci wët gu mujj gi nga xam ne mooy wëtu bëbbal gi nga xam ne bésu tabaski la ñu koy def ñeenti ponk yooyu boo ci xam ne mu kalax mi da ko da ko yàqule aj da koy waraat bés boo xamee ne bii aj jotaan na te mu amul ngànt aj da koy waraat waaye bu dul ñeent yooyu nag bu amee jafe-jafe muy waajibaat yi ci des su su gaaree mu kalaf da koy jàng lam koy jange mooy dafay rey walwajibaatu gayr al arkaani bi dam qad jubirat minha tawaafu man qadim tawaaful qudóom sa sële tawaaf ba ak dox safa ak marwa julli ñaari ràkk sunna soo fay dox nga nga nga nga soo cay dox diggante safa ak marwa nga dox sa tànk yooyu ak ya demee ni ñoom waajibaat la yoo xam ne boo ca boo ca amal jafe-jafe da ngay mën a jàng rek mu daal di baax ya nga xam ne yéegul ci waajibaat yooyu nag di ay sunan boo ca bàyyi itam aj ga du yàqu te itam euh, tour de sax du ca war yooyu nag nit ki da ko war a xàmmeel boppam ba nga xam ne moom bu amee ku ku ko di ca kanamam di ko gindi itam mu sant yàlla waaye waxtu bu amul loolu wala mu am yëg lu ko gaar loo xam ne moo ko yégal boppam mu daal di xam la ca war loolu kon fa tabaarakalaaw ñëpp dañu ko war a xam aji nag lëf la loo xam ni Mustafa sallallahu alayhi wa da ko wax ni képp koo xam ne aj na néeg bii te deful lenn lu ñu tere ci ay ay caaxaan lu yàq aj wala ay ay ay càmbaabooy sunu borom da koy may mu mel ni bés ba mu juddoo woon ci yaayam ci ñàkk bakkaar loolu Cheikh na Ahmadul leeral na ko ci ba muy wax ne alxajju yuxrijul fata min ad-dunub jamii ah jumlati haawamil baqiyatul uyub wax nag ya nga xam ni nag aj du ko du ko du tax loola mën a yéwén lu may nga dem lijjanti loolee nam war a lijjanti ko ci lislaam ci na ahmadul xadim radiallahu taala anhu leeral na ko ci lu aj di def ci ab julit nee na aj ci boppam day génneel julit bi lépp lu nekk ci moom ci ay ayit ak ak ak ak lépp lu nekkoon ci moom ci bàkkaar da koy dàqal lépp ci nekk lu nekkoon ci moom ci ay ayib da koy dindil waaye nag loolee mu sett ca yoo xam ne su fekkee jullit bi daf ko gaaroon lool da koy lijjantil boppam na ko lislaam waxe wa xajjatun alxaju yuxrujul fata min adunub jumlatiha wa min baqiyatil uyub lakin da li gayri xaqi muslimi wa gayri faiti salaati yantami misluhuma kafaratun xad wajabat min ramadana aw zihaarin xad sabat jullit bu fekkee dafa am lu séq ak moromam jullitam moromam jaamam ci alal aq loolee aj du ko di ko dindeel day dem lijjante kook moom fay ko mbaa baal ko ko naka noone itam waxtu jul juróom mu faatal ko loolu loolu aj du ko ko faral da ko ko faral day dem fee seet nam ko lebee woon mu fay ko naka noonu itam kafaara goo xam ne da koo gaar ci weeru koor wala da koo gaar ci loo xam da ko séqoon ak soxnaam ba kafaara war ca te deful kafaara yooyu ñeent yooyu nee na aj ci boppam du ko dindil jaam bi jaam bi lim lijjanti ko boppam sëñ bi wax na ne aj gu ñu nangu ak payam rek mooy tàbbi aljanna waaye aj gu ñu nangu nag mooy gan mooy goo xam ne nit ki aj na ko ba mu àgg ba mu xarmalee ba keroog mu def taxallul waxu fi lu sunu borom tere defu ko fi te itam fu mu war taxaw taxaw na fa lu mu war ñaan ñaan na ñaan na ko leele na ba ba keroog aj ga noppi mu delluwaat ci ay yére solal ay yéreem diggante bu lépp defu fi lenn lu koy xaj ab yool defu fi lenn luñ koy bindalee bakkaar bu boobaa kooku na rafet njool ci na aj gi nangul kon yàlla na nu yàlla defal tawfiq defal ko ñii nga ab ne dem nañu ñu dem ak jàmm deeseeg jàmm te sunu baam nangu seen ak aj ni ko sëriñ bi ñaanee habli ladi qasada baytaka alxaram afdala hajjin raaji an ma almaram loolu xasida goo xam ne da ko tënk da koo tënkee allahu muhammad tuddee ko yóbbal bu jot dem ak dikk ba mu ngi laabiri képp koo xam ne sa sa sa yitte may na ko xasida googu nga jéem ko am ndax la ci sëñ ba wax moom wax na ko ca te ca wax ñaan ko boroomam ñëpp di ñu rafet njort ci nam ko ñaanee la ko borom bi defal dafay awsil bi xaqi wajhikal karimi xaamila dalil bayti bi takrimi xasidi gi ku ko yor waxuma nag ko ko yor ba noppi jàng ko waaye na ko àggale ca sa néeba te itam nag am aj gu ñu nangu te déchaat ci njabootam yàlla nañu yàlla defal tawfiq defal ko mbokk yi gannaaw waxtu bi dafa xar nag li ñu waxoon ci aaya boobu alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum niamati wa raditu lakum lislaama diina aaya bi ngi wàcc ci bésub ajjuma ni tey jii ca arafa Mustafa sallallahu alayhi wa juróom-ñeent fukki fan la dundaat gannaaw ak benn ñetti weer ak benn fan bés boo bii nag ba mu wàccee la sunu boroom waxamal bindeef yépp ne jullit yi tey egg nañ ci yeewu ak ñor foo xam ne aajootuñ mu yónnee ab yonent Mustafa sallallahu taala sallam mooy ki mi mujj yónni doy na sëkk dootu yónni indi ab beneen téere alquran doy na sëkk dootu indi beneen diine lislaam doy na sëkk loolu nag sunu boom du ko wax ci alxuraan ñu jàpp kon Mustafa sallallahu alayhi wa sallam téere bi ci boppam wala diine ji ci boppam dana bàyyi ab ruq boo xam ne doomu aadama dana ci yëngu mbaa bu di ca nokki mbaa bu di ca dund te alxuraan waxu ca wala diine ji waxu ca wala musalaa waxu ca ndax loolu dafa am ñoo xam ne yeneen diine yoo xam ne dañuy sikkal ak islaam di jàpp ne lislaam moom diine jaamu la julleeg woor ak yu mel noonu am na soo ñoo xam ne sax ay jullit lañu waaye fo dañuy wax lu jëm ci wet googu defee ne lislaam dalay wax nooy jullee nooy wooree nooy natti asaka nooy aje màkka waaye mbirum àdduna mi dégg léeralu ko te loolu ñàkk dégg lislaam la al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum niamati wa raditu lakum islaama diina sunu boom du ko wax ba noppi diina ji am lu mu bàyyi diina joo xam ne day dem ba ne la booy dugg jàkk njëkk la dugal tànkam lay yoor sooy génn na tànkam lay jor njëkk a génn sooy dugg fooy waajee na tànkam càmmooy njëkk a dugg soo sooy gé soo jógee ci fa ngay waajee tànkam ne jor na njëkk a génn loolu ay woyof a la waaye lislaam da koy da koy da koy lijjanti kon kon beneen yëngu ma waxi noppi lépp lu nit di yëngu ci àdduna sag dal ba ci sag faatu lépp dafa lislaam da koy contrôler qul inna salaati wa nusuki wa mahma wa mahyaaya wa mamaatee lillaahi rabbil nit ki ak dundam lu mu def ci xeeti jaamu lu mu def ci xeeti jokk jokkoog boromam ak gën koy jege ak du ak faatoom lépp bon lislaam da koy contrôler kon kon lépp loo xam ne jaam bi ma koy def na jàpp ne war na caa seen lan la ci alquran wax wala lan la ci Mustafa sallallahu taala sama wax ak lan ci dina ji santaane ba ci ay yëngu-yëngu àdduna yi donte ne yëngu-yëngu yi nga xam ne xewoon na ci réew bi sax la lislaam wax na ci alquran wax na ci euh, Mustafa alayhi salaam wax na ci ci ci tënk rek loo xam ne lu gàtt lay doon ñu bàyyi ci xel bu yëngu-yëngu yu mel noonu mas amatee Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne kii kii na tànn ki muy tànn ngir yàlla te xam te jàpp ne moo gën ngir yàlla man istaamala rajulan min jamaa wa fiihi man huwa arda lillahi minhu faqad xaana allaha wa rasulahu wal muminin su fekkee ñaari jëmm dañuy wulu yi xëccoo mbaa ñaari kuréel yow may tànn Mustafa sallallahu alayhi wa wax ne soo tànnee koo xam ne wala nga tànn kuréel boo xam ne ba nga bàyyi moo gën ci wetu yàlla nee na war nga yàlla war nga yonent bi war nga lislaam war nga jullit yi dangay ngay tànn ka ngay tànn ngir jàpp ne moo gën ci wetu yàlla kooku lañ la tànn loo ndax wa man xaana diina allahi jalla wa ahlahu faqad laabadal islaama fantaqadal xaslu képp koo xam ne war nga lislaam war nga jullit yi sa këccu ta sa këccu dana firiku xam ne ñoom la ñuy tànn abu hurayra moo ne Mustafa sallallahu alayhi wa wax ne man talaba qadaa al hatta yanaala summa galaba adluhu jawrahu falahu aljanna wa man galaba jawruhu adlahu falahu nnaar Abu Hurayra moo wax mu ne kii kii kii tànn ñu kii kii sàkku ñu tànn ko mu nekk njiit suñ ko tànnee ba noppi ak ak ak ak ak maandoom gën a jëng gën ak gën a not ak jëngam suñ faatuy tàbbi aljanna waaye su fekkee ak ak jëngam moo not ak maandoom bu faatuy tàbbi safara sayida Aysa radiyallahu taala anha wax ni Moustapha moo wax fii ci sama néeg bi ne koo xam ne méngoo na dara ci sama mbiri xeet wi mu yërëm leen yàlla na nga ko yërëm yow sunu borom ku méngoo dara ci sama mbiri xeet wi mu mu mu leen yàlla na ko solal allahumma man waliya min amri ummati shay'an fa fa shaqqa alayhim fasquq alayhi wa man waliya min amri ummati shay'an fa rafaqa bihim farfuq bihi sallallahu taala moo ko wax Anas ibnu Malik wax ni Mustafa moo ne man ibtaxa alqada wa saala fii shufaa wukkila ila nafsihi wa man ukriha alayhi na ansala allahu alayhi malakan yusaddidu koo xam ne daa pal dem di ay partenaire ak i lijjanti ak i neex laate sunu borom da koy ak boppam waaye koo xam ne nit ñaa ko tànnal seen bopp ngir ak jubam ngir compétence am ngir bëgg réewam ngir bëgg liggéey nee na kooku sunu borom dafa yebal malaayika moo ñëw moo xëy dañu da ko jàppale man ibtaxal xada wa saala fii sufaa wukkila ila nafsi borom bi da koy bàyyi boppam bu amee saas dégg bu amul saas moo xam waaye wa man ukriha ila alayhi koo xam ne bi neef yàlla tànnal seen bopp ngir sa mat ngir sa jub ngir sa compétence ansalallahu alayhi malakan yu saddidu malaaka malaayka kum dimbali xam nga ne sa mbir dana baax kon yàlla na suñu bopp defal tawfiq te te lépp lu ñuy dugg nu xam ne lislaam bàyyiwuñu ci dañuy contrôler lislaam danay contrôler ci lépp say nooyo say lépp ah aaya boobu suñu boom du ko wàcce ba noppi Moustapha dundal gannaaw gi ñetti weer képp am luy des ci diine ji moog aaya bi nga xam ne wattaqu yawman turjawna fii ila allah suma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat laa yuzlamuun aaya boobu juróom-ñeenti fan la Moustapha dundaal gannaawam kon moom itam nañ ci bàyyi xel nañ bàyyi xel ci bés boobu te buñ ci bàyyi xel rek lu baree bari dana nu ko mën a jariñ bésu faatu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne ba ko ba ko ba Anas di laaj wala Abdullah moo ne moo fekkee kenn ci ansaar ñëw di laaj Moustapha alayhi salaatu wa kan moo gën ci jullit ñi mu ko ki ci gën jikko moo ci gën mu ko kan moo ci gën a am xel moo ci gën a ñëw mu ne ko aktharuhum lil mawti dikra wa axsanuhum lima baada al mawti istidaada ulaika al akyaas jullit ki ci gën mooy ki ci gën jikko Mustafa sallallahu alayhi wa sallam moo ci gën jikko moo tax moo ci gën waaye ki ëppam xel na gën a muus na gën a yeew gën a am bopp mooy ki nga xam ne moo ci ëpp lu muy fàttaliku faatu te moo ci gën a rafet nu muy bàyyee xel la ca gannaaw faatu daal di wax ne ñooñu ñu ulaayka al akyaas alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baada al mawt wal aajisu man atbaa nafsahu hawaha wa tamanna ala allah kon yàlla na yàlla defal tawfiq ñu bàyyi xel bu baax a baax faatu te defar waaj bu baax a baax ca des la gën a faatu te xam ne kenn bu ko wiri wiri jëri jëri ndaari salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu